ahousubillahi min asheytan irajim bismillahi rahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa barakaatu mbokki taalibe yi ñu ngi leen di leen ziare di waxee kàddug sëriñ Modou Anta mi nga xamante ne bii moom lañ fopp liggéey bi teg ko ci loxoom muy kàddu yi sant ak i soññe ci wàll gi jëm ci moroomi taalibeem ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam sant bu baax a baax Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal bu baax a baax a baax mu yàgg fi te wér waaye noonu la koy ñaanale Serigne Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi lool te wér waaye mi ngi koy ñaanal magam ju tedd ji ju baax ji muy Serigne Assane mu yàgg fi lool te waaye mi ngi ñaanal sunu bàjjen soxna Fall jëgg yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko di sàkku ci mbooloo mi ñun ñëpp ànd ñaanal ko suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko yàlla na ko yàlla def yàlla na ko fi yàlla yàggal ndax maanaam sagob euh, kër gi la wax dëgg yàlla san nañ ko bu baax a baax mbokki taalibe sëriñ bi mi ngi delluwaat di sant rek ci liggéey bu tedd bii nga xamante ne bii moom lañ ko teg ci loxoom mu jiite ko ndax liggéey bu màggee nii bu teddee nii bu réyee nii kuñ ko fab teg ko ci sa loxo wax dëgg yàlla war ngaa sant bu baax a baax loolu nag mu ngi leen koy gaaral mi ngi mi ngi leen sant bu mi ngi koy mi ngi sant sëriñ bi bu baax a baax di ko ñaanal bu mu yàgg fi lool te ànd ko wér la ci dolli ko moo di ne mu fas ne waxtaan ak moromi taalibeem yi nga xamante ne bii moom la àndal liggéey bi ginnaaw bi mu santee ba noppi sëriñ bi nee na ginnaaw bi ñu liggéeyee liggéey bu sell bii nga xamante ne bii lépp aw na yoon mel na ni ko sëriñ bi bëggee la ciy des moo dina nag yóbbu ko teg ko ci loxoy sëriñ Touba te loole na nañu ko yàlla jàppandil te it buñ ko tegee ci loxoy sëriñ Touba yàlla nañu ko euh, yàlla nangul ci mbaaxu sëriñ Touba muy wax ne nun taalibe yi nanu ànd akuk dal ak teey akuk yar ndax kër gi loolu lañ leen xamee képp koo xam ne kii yaa ngi uti ji ab yar wala taalibe fii nga ko war a uti ji waaye fii wara su fee jël ab safaan wala nga fi jële leneen loo xam ne lii lu wut la ak bu yar ak i teggin muy soñu boppam di leen soñu fii mu jógee kër gu tedd gi ci liggéey bu tedd bii jëm ca kër gu tedd gee fas yéene koo jébbal ko tedd nun nan ko xamee noonu ba fonke ko noonu kenn ku ci nekk xam ne na ànd akub yar na ànd ak teggiin te xam fi mu jógee xam fam jëm xam li muy liggéey loolu buñ ko defee lépp dina rafet te euh, seetlu na liggéey bi xaw a am ay euh, daanaka ay pëccaxoo ndax euh, ni ñuy demee benn bu ñuy bala ñoo jóge fii gis nañ yoo xam ne yi wax dëgg yàlla yellut ci kër gi ndax loolu ñuy wax ne ay mayeeg ay ay ay mët yu daw ñoo xam ne liit loolu daal jaadu jaaduwut nanu ànd ko yar ànd ko teggin sëriñ bi nee na lii du ngénte du ceet ba ñuy def ay maye ci penc mi kenn ku ci nekk di daw xale yeeg jigéen ñëpp di fal koo di daw loolu jaaduwut loolu sëriñ bi nee na na ngeen ko bàyyi lam ci dolit moo di ne fii yoon wii ñuy dem ba ba ñuy àgg Mbàkke nanu bàyyi wenn yoon wi ñi ñuy taseel mën a am seen afiya mën a romb ci jàmm salaam dem waaye waruñu ku ñu taseel ñu taxawal la ba ñu jàll ngay soog a dem loolu sëriñ bi nee na yellul ci fii ñu jóge jëm fa ñu fa ca kër sëriñ ba jaaduwut nan koy teet bu baax a baax sëriñ bi nee na xam na bu ñu àggee ba ca biir Mbàkke wala Touba rond ya amaana oto yee dañu ñu di ñu ñuy yéex a dem foofee xamees na nga taxaw fa Eh, mën a baare oto yee ba yi jàll loolu xames na ko waaye oto yoo xam ne yu joteewoo ak ñoom dara daal jaaduwut ngay ngay ngay nga leen taxawal eh, di di di di yàq seenu yoon te jotewut ñoo ak ñun dara sëriñ bi daal li mu bëgg a wax moo di ne nanu ànd ak bu yar nanu ànd teey ànd ak teggin xam fii ñu jóge xam fa la ñu jëm xam li ñuy liggéey xam li ñu tax a jóg lu baax dong ñu tax a jóg kon nag sëriñ bi mi ngi koy dénk boppam di leen ko dénk nee na daal képp koo xam ne kii sëriñ Saliou bu toogoon sa kanam bu la waxee nga dégg nee na na mel noonee nga xamante ne bii bu sëriñ Saliou toogoon sa kanam wax la nga dégg nee na noonee na ko na nga ko mel noonee na nga ko doxee noone noonu la ko sëriñ bu bëggee noonoot la leen ko euh, euh, waxee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na taxawaay bi rafet na pastef bi matale na ñu ngi leen sant bu baax a baax sëriñ bi xolam bi sedd na guy guy mi ngi ñaan ci yàlla ngeen yàgg koo def nu nu yàgg koo it sëriñ bi ci ci ci nam gën a rafete ak nam gën a baaxe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi alayhi assalaam wa salaam di sant Serigne Touba ak Cheikh Ibra di sant maam Sali Fall borom Daaru Xafoor di ñaan sëriñ Assane Fall moom sëñ Modou maam xalifa Serigne Sali Fall suñ borom yàggal ko fi te ko ak mbooleem njaboot gi. bàyyiwuñ kenn di wax ay kàddu yu gàtt yoo xam ne damay bëgg rek sama moroomi taalibe yi laay waxal ñu bàyyi ci xel li sëriñ Gallas Fall moom sëñ Abdou sëriñ Fall moom sëñ Abdou daaneele kàddoo foofu laa koy jëlee. la ca dooleeku mooy sëriñ bi ndigal doon joxe rek loolu laay waxat mooy ci daara xufal ma soppee maam Sali yi mu bëgg mboolem taalibe yi ñu bàyyi ci xel na ma ko waxee woon rek nañ ci bàyyi xel bu baax xam ne amuñu loolu sëñ Sali Fall. nañ góorgóorlu taxawaay bi rafet na lool ku gis mbooloo mi xam ne sëriñ bi képp leen ñor da leen leen liggéeyal sëriñ bi képp leen ñor kon sëñ baa ngi sant tey gërëm di bëgg ñu feetli suñu laxasaay ci kuréelu soppee Maam Saliou ci kër sëñ Saliou Fall gii nañ ci taxaw ba mel ni mbooleem kër yi yëpp ndax kër goo fi dem rek na ma ko waxee woon keroog lu fa baax rek lu fa jag bañ man koo xool taalibe yaa ko fa def kon nañ bàyyi xel lañ laxasaayu jël suñu alal def ko ci liggéeyal Serigne Saliou Fall bi ko defee lépp luñ bëgg dinañ ko mën kon nañ jaayante nañ defar keroog it nañ ko defaat kenn ku nekk na nga jël addee Serigne Saliou Fall te ko fii ñu jox ko ci liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah asan faal doo dem banoo sariifo faal ay dara faal sariif asan faal yàgg fee laa ilaaha illallaahu faal laa ilaaha illallaahu si asan faal yàlla fi yàgg tiw jéggalu ndax wér gi dafa xaw a des lool ci ñun moo tax waaye ñu ngi sant tey gërëm waxal baax na bàyyil nee ko ñoo ngi sant ñëpp waaw Sëriñ Fallou nee na ñu ngi sant ñëpp lii mooy ndogu mu ne lii mooy ndogu dogu nag man ci ma ko dégg mooy dogu tuyaaba mooy dogu tuyaaba nee na dogu nag nim ko déggee mooy dogu ci tiyaaba. te mu ngi am 1916 lam la ko commencé. te nee na 1916 la tàmbali. fa njaareem ci Serigne Touba. fa njaareem ci Serigne Touba. ca kër gu mag. ci kër gu mag. fa la ko Cheikh Fall toggee. nee na fa la ko maam Cheikh Ibrahima Fall toggee. 16 ak 17. 1916 ak 17. la doog a dem kër Cheikh di ko fa def moom maam Saliou Fall. Ah, nee na 1918 la dem kër Cheikh Ibrahima Fall di ko fa def. jamono yooyee. nee na ndog yooyee mu defoon ca jamono yooyee. te ci ndigal. te teg ko ci ndigal. sunu yi wéy ca loola. sunu bàyyi wéy ci loola. sunu sëriñ sunu asan ñëwaat feddali loola. sunu sunu sunu sunu xalifa sëñ asan ñëw feddali lool yàlla na fi yàgg tëwér. nee na yàlla na fi yàgg lool tëwér. ndigal moom la jëfe. nee na ndigal jëfe moom la jëfe. kon tuyaaba ak yokk yàlla nañ ko am. nee na tiyaaba ak yokk yàlla nañ ko am. Eh, loolu fi ma ko teg mooy. nee na fi mu ko teg mooy. ci sunuy wax ñun murit. ci sunuy wax ñun murit. dañ naan yoon wi tànk kanam lam am amuñu gannaaw. nee na yoon wi tànk kanam la am amuñu kon la bàyyi defoon ci jamono. kon la bàyyi defoon ci jamono. bu doom ak sët ñëwee da ko war a yokk kon bu doom wala sët ñëwee ko war a yokk kon nag nañu jàjjuwaat jëm ci kanam kon nañu jàjjuwaat jëm ci kanam fas yéene yokk suñu jëf fas yéene yokk jëf ji rawati bii di ñëw rawatina nag gaaw bii di ñëw suñu bàjjan soxna Fall jëkk itam suñu bàjjan soxna Fall jëkk itam ñu ko ñaanal ci barke Sëñ Assane nii ñu ko fi ñaanal ci barke Sëñ Assane fi mu yàgg fi te lool mu yàgg fi lool te jëfam fés jëfam fes na ràññeeku na ràññeeku na moom njabootam moom njabootam te dënnam teewuñ dara tàngam luwuñ dara te tàngam luwuñu dara kon jërë ngeen jëf salaam wa rahmatulah barakaatu jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah amiin

la لنا لا يزل لا إله إلا الله لا إله إلا الله la ilaha